jafe-jafe ba tax na ñu ci amal waxtaan ci ñi ko sekk rawatina CNCR ak ay partenaires yu gàllu wàll woowee. baykat yi nag lëkkaloo ko nguur gi waa société civile ak ñeneen ci ay partenaires daldi rekk rek amalab ndaje ngir waxtaan génne ay pexe waaye itam weccoo xalaat ci nu ñuy doxalee wàllum suuf ci réew mi. noo ngi wax waxu suuf suuf de ku ne xam na ni moom moo lëmbale lëmbi réew mi ku taal rajo seetaan télé. doxantu si dëkk bi dégg coowu suuf waaw boobu coow dañ ko war a bàyyi rek dañ siy wax gannaaw nag 90 ba léegi ñu ngi siy wax te mënul sotti si nguur nun de dañuy continuer wax ndax si réew mi lañ dëkk si dëkk yi lañ dëkk. li ko tàggatéem bi mooy def nañu réforme ba tàyyi ba si mujj bi ak professeur Sran déposer dossier si table gouvernement bi. mu jul sotti. CNCR nag daal dinay liggéey ci nas ay pexe ngir taxawu askan bi ba ñoom itam euh, ñu mën ci am seen wàll. waxtaanu tey bi nag li si am comme soppeeku mooy dañuy nettali ay xam-xamu yorinu suuf yu jóge si euh, population locale xam-xam boobu noo ki jële jëlee si zone agroécologique yi jële ko si dëkk yi gën a sore. jëlee ko fi nga xam ne dafa am coow suuf am problème mu accaparement am ay conflits fonciers su paree ñu tënk ko ci benn feuille de route continuer nag combat bi. pexe yu bëri jot nañu ko lal ngir am loi de réforme ci mbirum suuf waaye boobu ba léegi dara sottiwul loolee nag li ko waral bu ñu sukkandikoo ci jëw jëwriñ yi ngànk wàllum suuf nguur gi moo ko rek daal di lajjal ndax document de politique foncière bi teg nañ ko ci taabul njiital réew mi waaye amul benn tontu.